asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 23 mars vingt ñëw ak yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey sunu lamb la ñuy xëy doore ko la fa xëy nag lu doy doy waar la ko ko wax nag mooy Amadou Kati Diop Amadou Kati Diop mooy coach si écurie Ndakaaru kati Jóob nag la mu wax jimale ko ca arbitre yi moom doy na ak waar ba yegg ca lool moo tax yëglikaay bi jàpp na day lii moom révélation de taaya taay la maanaam daal xibaar bu rëy a rëy rëy la fa Amadou kati Jóob xëy tey wax nee na daal li leer ba leer bam xaalisu recours bi jàppal kàttali na daal ñii di arbitre yi daal ñoo ko mas di yore wala boog ñoo koy tee wala ci seen i poste la mas a jëm katee wax lu mel noonu ci yëglikaay bi di sunu làmp nee na li leer ba leer nag xaalis boobu moom CNC mësu koo laal kon nag jàpp na ne daal moom Katy Diop arbitre yi nanu yem ndax su wax amee rek boo sàgganee moom yooxu dana jib fees ko fagewul Katy Diop moo xëy tey di wax loolu nee na li leer ba leer daal arbitre yi moom ñoo ko waa CNC ba moom xamante def nañ ko maanaam daal kulli xamee na ak jaaloo loolu waxi ki nga xam ne mooy Amadou Kati Diop la ci yëglikaay bii nga xam ne moo di sunu làmb waaye ka nga xam ne moom ca kuréel googa yore làmb ji la bokk muy Mohamed Ndaw Tyson moom ak noppeem moo jaaxal nit ñi ba ñu xëy tey yëglikaay bi ñëw ci dina ko wax ne na Tyson daal noppeem gii dey ak jaaxle la maanaam daal noppi gi mu noppi ba coow li jógee ba tey arbitre CNC Alioune Sarr kenn déggul Tyson kenn wax ci moo maanaam daal cel la def jàpp boppam loolu yëglikaay bi xëy ñëw tey wax nu ko ki noppiwul moom bay wax moo di mbay guy gi ka muy waxal nag maam Balla la mbay guy gi day nee na ko li leer ba leer jàppal bu nu bagaaree moom maanaam xeex jàppal dama lay dóor nga waaj bu nu bëree itam dama lay daan loolu waxi mbay guy gi la jëmale ko ci ka nga xam ne nii moom moo di maam Balla ma mu war a bëreel tasan Ndiaye jaar fa tëgg boobu combat waaye bu nu continuer beneen combat boo xam ne nii moom jàpp nañ ko mu war a am muy diggante France ak Leket Baara te jam production jaar fa ñoom ñaar nag le 8 mars bii passé daal ba nu dajee ci arène nationale mayante wuñu dara ku nekk di dig nga sa morom lu tara tara tara loo xam ne bu buñ ca yeggee moom bu ngeen jëflante ba pare ku ne di nga xam fa ngay jaar sa morom wala boog noo koy xel di wooye yëglikaay bi xëy na xëy tey ñëw wax ñu lu mel ni ki keneen koo xam ne mi moom gëj nañ koo gis ci làmb ji wala boog mu gëj caa xëy na tey yëglikaay bi indil ñu ko muy Gaston Mbengue ginnaaw ba mu waxee nag fa nga xam ne mooy ca wasaare daal yëglikaay bi ñëw na tey jël wax jooju indil ñu ko mu mel ni ki nag Gaston Mbengue day nangu na ne daal moom moo doon démarché Bombardier ak Eumeu Sène Balla Gaye 2 ak Boy Niang yëglikaay baa xëy ñëw tey wax ñu lu mel ni ki noonu Gaston nga fa fa nga xam ne nag moo di ci yëglikaay bi nga xam ne moo di suñu làmb toog fa ñu wan ñu ko waaye bu ñu continuer ba tey ci yëglikaay bi li leer ba leer nag lii nga xam ne nii day moo di coronavirus ba moom daa mel ni ba mu ñëwee jàpp pour kese ña nga xam ne nii ñoom la dal waaye ñamu dalagul sax tey liggéey ci wàllum làmb daa mel ni tere na leen a def liggéey ba ñu daan def nan ko daan defe Fatma ja wax na ca ne na li leer ba leer daal fi mu nekk nii moom liggéey bi sensé na par rapport ak nan ko daan defe Basirou Diouf tamit wax na bu wasaare moom itam xam ne ne daal li leer ba leer moom liggéey bi mënatu la doon benn ak bu njëkk nam daan demee ay sa fay moom ca léewtoo la ne moom itam la mu xam ne daal nee na fi mu nekk nii li am ba des mooy nañ daan liggéey moom fi mu nekk nii la nga xam ne nii daal mooy lu nécessaire la la ñuy def ka nga xam ne tamit moo di ndey Kumba Faal moom itam ba tey nekk fa nga xam ne moo di ca Leewtoo nee li leer ba leer dal fi mu nekk nii boo xoolee wàllum wàllum daal confinement lañ leen xaw a def ndax nag liggéey ba moom wàññi nañ ko cël kàddu ka nga xam ne moo di kilifa di Pape Thialis Faye nday kumba moo wax loolu ci yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu làmb Omar Gaye Sénégal direct tamit nee na fi mu nekk nii moom arrêt bu baax a baax moom la def ay activité am taxawal ko waaye ka nga xam ne moo di Lamine Seck nekk ca Lutte TV moom itam nee na li leer ba leer liggéey ba fi mu nekk nii moom nam daan demee demeetu ni xanaa kay dem ca frigo ba la ñuy def ubbi ko lañ fa fekkoon ci loo xam ne lu sedd la ñu génne ko tàngal ko jox ko nit ñi ñu jariñoo ko loolu Lamine moo ko wax bu Lutte TV ci ba nga xam ne moo di sunu làmb waaye bu nu continuer ba tey daal ci mbirum coronavirus booba moom li leer ba leer moom jàppal boo bëggee dégg-dëgg fi mu nekk nii day xañ na lu baree baree bari nit ñi moo tax bu nu demee ci yëglekaay ba nga xam ne moo di la tribune moom Assane Ndiaye di ab promoteur mu ngay wax sénégalais yi nee leen li leer ba leer day nañu sénégalais yi ñu xam te nangu ne coronavirus bi lu am la tey nag day dalee te du ca yamit day raye de moo tax Assane Ndiaye daal mu ngay dànkaafu gars yi ngir ñu xool bu baax la ñuy def ak la nga xam ne nii foom la ñuy wax ak fa ñuy dugg ndax nag nee daal la tribune la ko waxe li leer ba leer corona bi moom day li leer leer nag kon li am solo mooy comme day reye day teenoo def li nu docteur yi digal ndax nag docteur moom li leer ba leer du yokk ay toor de déeréet te jaboot jàmmay mbokkam jàmm nag ne nañu fa muy jóge du fa jeex waaye fa mu jëmit du fa doy waaye li am solo kon nanu jéem a fagaru moo gën te feggu moytu li am ba solo nag mooy àddina moo tëdde noonu ndax fu ñuy waxee feebar itam dee am na fa moo tax ñu naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Mamadou Ndiaye doos ma ngeen xamoon ca oxygène ca wal fajri ba ca groupe des médias moom la sunu borom bi jël dem ci kàttanam ak man-manam ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko te xare ko aljana ndax nag dem ba la ñuy dégg ci moom ci ay seere rafet na ci ko fonkoon liggéeyam dëggu lool te lool defe naa moo am solo fal daqaar sax boo koy jaay danga cay boole fulla ndax ëllëg a tax te day ñëw mbokk waa Leewtoo TV ñu ngi leen gërëm leen sant ba waxee ngeen ànd leen si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen ci jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar naa la ndamoo naa la nag ñëw ba mu ñëw nag moo dafa xam a taw tombé ak coronavirus bi waaye nag a waroon na gën a a neex que ma ñëw ñëwee beneen beneen façon na mën na mën na la ni kon ñu ngi nuyu internet yi leen ziar di ñaanal jàmm tey ci altine ji comme ni nga ko waxee moom waaw mais situation oblige di feebar yàlla nañ ko nangu accepté ko mooy lan xam ne yàllaa ko fi yónnee ah ñuy def li nga xam ne moom la ñu docteur yi digal rek man loolu laay wax daal parce que loolu moo ci des actuellement moytu ndax nag du ak ragal. Babacar moytu aussi ak jox cër tamit nit ñi parce que mënuma comprendre yow nu ne na nga am na la testé positif Babacar nu jël la yóbbu la hôpital ngay daw ba ngay delluwaat sa kër wàllaat ñaa ngi ko ñeneen dañu war a wax tamit Sénégal yi nañu war a yaru tamit yaru tamit Babacar feebar tamit euh, loolu la àndal. ma boo dawee foo jëm da ngaa feebar nga daw léegi foo dafa da ngay daw dugub àll wala da ngay daw tëju sa néeg ay eh, voilà wala nga dem di ko wax ñeneen loolu pour man ñàkk a ñàkk nekk nit nit ku responsable sax moo koy def danga feebar ay dox nit ñi xam nañ danga feebar dangay faju ji yàlla wax na nañu ko maanaam ku feebar dangay faju yaa ngi dégg feebar da di gàcc te koo ko sa bopp yàllaa ko yebal mu di ab jaam ni yow di di di di lu lay dal te bu la dalee danga koy faji yaa ngi dégg la di bakkan ba nag la koy jël doo jotewut ak feebar ba dara loolu borom bi moo xoral boppam ak ña mu koy diggal ñu koy jël bu jël ko jotee xoolul foo nekk ak foo feebar rek nangam da koy jël kon li am solo daal mooy yaakaar naa moom loolu moom yëfu irresponsable la waaw nañ ko moytu daal euh, jarul nëbbu jarul kii du gàcce waaw Babacar na ñëw nag ak sunu laam sunu laam moom dafa xëy dala ki nga xam ne mooy Kati Diop Kati Diop nekk école de lutte euh, école de lutte Dakar moom daa jox na ay révélation de taille nee na euh, arbitre yi euh, ñoom recours xaas mbër yi ñuy dagg ñoom noo koy jël nee na tamit CNG moom xaas boobu du ko musu ko musu ko gis musu ko laal nee na nag arbitre yi nee nañ daañu wax te nee na bis bu wax amee rek muy CNG muy arbitre bi caaf dina xam Babacar. ah waaw Kati de tey li mu xëy wax doy na waar xaalisu recours daal nee na arbitre yee koy téye ñoo koy yor boog. ci ñoom la jëm ah li am solo nag mooy weerante daal amul njariñ parce que nag àddina lépp sutura la yàlla bëgg na sutura trop ci sunu dund gii kon defe naa ne ku nekk boo waxoon la nga xam yaakaar naa tey maak yow sax léegi ñu commencé dóorante ay mbol de waaw parce que àddina tëddewul noonu li am solo nag mooy moom Kati Diop mii ci làmb la bokk comme mbër comme entraîneur comme membre ak ñu Niané liggéey na fa ba tey defe naa ne ñëpp xam nañ ko arbitre yi même chose que jiite làmb ja noona kon li am solo nag comme loolu lépp ñoo ko bokk bokk réew mi defe naa est que waxtaan ci biirub néeg waxante dëgg te yàlla tax xool li ba baaxul ñu defar ko li baax ñu continuer ko est-ce que loolu gënut weerante bi man daal weerante man day ku ma fal dama ko bëggut ci dara lu mu mën a doon daal weerante jërul mu cay am ndax ay kilifa bu ñu demee ba nekk ay kilifa yàlla def leen kon nañu ko accepté nañ koy accepté nag mooy li nga xam ne ni ñëw na te na nekk loo xam ne problème la ñu régler ko en tant que ay kilifa mais na pas ay weeranteeg waxante lu ñaaw ak yooyu moom defe naa amul njëriñ quoi pour man. Babacar loolu si yow laa ko ne coow su amee dañuy xool dañuy rafetal wax ji ndax juboo ba moo tax. tax nday ku ma faal booy xuloo xuus bis bu juboo jotee da tefesu booy dem moo tax booy xuloo bul xuus mukk sóoraale lu juboo te juboo day am na nag ñoo nag si Tyson ndax ne nañu journal bi nee nañu Tyson daal bu coow bi amee diggante seen gee ak ñi nga xam ni mooy arbitre yi nee na ba léegi dégg nu muy yàbbi si si mbir moomu Babacar mooy nag lu xaw a jaaxal nag euh, askanu làmb ji Babacar. waaw non xam nga Tyson itam yaakaar naa ku ko xam. ci biiru carrière làmbam ba ni mu bàyyee làmb tey nekk membre kële doo ko sikki ci ne daa bëri wax wala mu ngay wax lu mu warul wax loolu moom ku ne mën na ko ko seedeel yaa ngi dégg dafa bokk ci benn euh, comité nag comité boo xam ne am na ay règlement am na lu muy doxe est-ce moo war a wa yaakaaruma a wax kon defe naa bu noppee bis bu waxam jotee pour man dina wax waaye nag comité ba defe naa Tyson du porte parole ba yorul communication ba du président ba copte nañ ko nag comme membre mu am lu mu fay doxal waaye yaakaar naa itam des am na foo xam ne noppi daf fay gën wax am na foo xam ne su fa mbir yeggee des na ci wax nga ngi dégg mais yaakaar naa loolu man gisuma lu ci si pour man lu war a tax ñu ne tey sa noppeem am na lu muy yàq non na ne waragul wax te gëm na na nit ku ragal wala nit ku ñàkk waaw Babacar keneen nag ki nga xam ne wax na tamit si journal moom mooy may guy gi may guy gi daal mi ngi araftu ki nga xam ne mooy mbambal la nee na ko bis bu nu jàkkaarloo suñu xeexee daal dina ko wàccee Babacar waaw mbay de yàgg nay tëkku mbambal na ko daal moom feleng na dem laay def xam naa nag wóolu boppam a tax parce que itam xale la boo xam ne mu ngi ci làmb di yëngutu di wane boppam bu baax a baax boobu ba te ci ay combat xam naa ne looloo tax te itam mbër da ngay wax li ne ci yow waaw kañu ci làmb la bokk ci lañ ko fi xam naa looloo tax muy wax lii mbambal waaye nag la koy wax mooy bërekat da lay bëreel Ama Baldé day mbër waada la li ma xam daal mooy mën naa bëre mën naa xeex te itam nag bu nekkee ci suuram bëreeg moom day du yomb de mbay nag na bàyyi loolu xel waaye tit tamit nag mbayit xale la moo tax ba nga xam ne daal kon Assane Ndiaye indi na combat bu nar a neex waaw ni <laughs> ñëw nag eh, ak eh, journal bi tamit ñëw na tamit si reporter yi nga xam ne ñoom nooy yëngu si wàllu làmb ki si mel ne Fatma Dia nekk Wasaare TV moom daal nee na liggéeyam dara changé aussi depuis bu nu defee eh, depuis bu corona bi corona virus bi wàccee fi nga xam ne mooy mbirum Sénégal Bassirou Faye tamit tamit Wasaare TV tamit nee na moom liggéeyam lu bëre changé na si Aïcha Faye madame Nia nekk aussi si Leewtoo moom nee na le juste nécessaire la ñuy def ki nga xam ni mooy Fatma Dabax Afia Afia FM moom daal nee na Euh, liggéeyam dara change tamit Babacar mais su mel ni tamit journaliste yi ñii dañu euh, dañoo seen façon doxin ñeneen ñi nag ñoom jàpp na coronavirus xëy nañ moom mënul yàq dara si seen liggéey di kon ko def seen liggéey Babacar. waaw li am solo nag mooy war naa xoolaat liggéey bi nag parce que nag yaakaar naa ne buñ nee feebar buy wàlle te kenn xamul fa mu ne. si ay dégg kon képp kuy liggéey rek waxuñu ne kenn bu mu liggéey mais nga amélioré na ngay liggéey yaa ngi dégg selon yow li la docteur yi di wax defe naa lool moo am solo ñoom ñoo ñëpp nag muy Fatma Dia Fatim Dabaax Ndey Kumba Faal ak ku mu mën a doon ak Aïssa Faye ba ci Lamine euh, ñoom ñëpp ku ci ne wax nga yaa ngi dégg li am solo nag mooy nañu xool bu baax ni ñuy def rek parce que Lamine moom wax na ci wax bu am solo ah parce que gis naa ko mu ne leneen ci frigo bi la génne te defe naa loolu mooy li am solo ay vidéo bu dee ñun bokk ay vidéo ngi fi yaa ngi dégg nañu dem xoolaat vidéo yi nga xam ne moo fi nekkoon te jàllagul ñu fexe ko jàllale parce que tamit dem ci nit ki di ko jëli interview la ko bëgg wax mais du ko gënal te loolu defe naa nag jawaruñu faa yegg waaw li am solo mooy bu wér-gu-yaram amee kenn du daw kenn kenn du moytu kenn mais comme loo xam ne la kenn xamul fu mu ne kenn te ni muy dikkee doy na waar moo tax ba nga xam ne daal fi mu nekk nii muy man ak yow ak ku mu mën a doon ak keneen ku mu ci mën a doon nañu amélioré bu baax ba façon de travail bi ñuy def fi mu nekk nii Babacar nag ni ñëw nag si face à face bi nga xam ne moo amoon le 8 mars dernier combat bi nga xam ne euh, Jamaïcain moo ko taxawal diggante France ak Leket Leket Baara nee ñu nag euh, face à face bi tàngoon na jër keroog si arène nationale. bien sûr waaw loolu tàngoon na jër waaw Leket ak ki nga xam ne mooy France moom xam naa seen combat ca Gambie la nar a amee Jamaïcain fa jaar waaye daal xam naa ne yàlla nañu ko fekkete tal ko mais da nga gis combat bu neex a neex ndax Babacar nag ñu ñëw nag ak euh, ki nga xam ne mooy euh, euh, tribune ñoom nee nañu nag Assane Ndiaye rek moom la ñu dalal foofu nee nañu sénégalais dañu war a gëm ni que coronavirus lu am la te lu existe la fii si suñu réew Babacar. ma bu ko gëmul lu ñuy gëm. ah loolu Assane Ndiaye wax defe naa ne sax fi mu nekk nii eh, yaakaar naa ne di ko wax sax xanaa jii nit ñi jàmm la rek. ak bëggal leen lu baax waaye kay defe naa ku gis monde bi ni muy doxee ak nit ñi ni ñuy nga xam ne lii moom boo naan amul xanaa léegi danga bëgg a def loolu neex te defe naa nag di wax naan amul sax bokkul ci responsabilité yaa ngi dégg dafa fekk ne am na dañoo mel ni Babacar xam nga doo comprendre lan la lu leen tax a jóg après parce que ay nit di feebar di dee ñiy faj dem ba mënatuñoo faj ña leen doon faj sax di dee nga loolu amul di ko wax sax pour man ëpp na yaakaar naa li am solo nag mooy yàlla bu togalee da nga koy nangu addina bi fi dafa metti mais rawatina Sénégal da wax sax ñu ne lii la ndax am na ñu ne ma démb xaw ma ku ma ko wax ah woo ma ne ma vraiment yow euh, affaire karaw ñu doon wax ci téere bi yow waroo ci wax da nga war ci yem ci revue beeg làmb ma ne ko pourquoi du ma ci wax man ma di ab jullit di ab sénégalais di doomu aadama lu toll ne ab yonent bu buñ ci wax loo xam ne ni ñu jàpp na ni warul te demee noonu te du ay teggin danañ ci wax parce que fa la ñu bokk yaa ngi dégg tax ba nga xam ne daal nañu demee yëfu ku responsable ci ni ñu doxale actuellement am na solo torop ndey ku ma faal Babacar nag balaa ñuy jeexale xaar ñuy jàll mbokk journaliste yépp ak surtout nag rawatina waa D-Media ak fi nga xam ne moom mooy Walfadjri kii di nga xam ne ak Oxygène mooy euh, Ndiaye Dos sunu xarit euh, sunu confrère moo génn àdduna dem Babacar fee si Espagne ci feebar bu yàgg boo xam ne tëraloon na ko Babacar. yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko jàll monde bi nga xam ne mooy euh, monde monde monde presse bi yépp maanaam képp ku yëngatu ci média ñu koy jàll di ko jàll waa Sénégal gi di ko dégg ci rajo muy àddu nekku nit ki nga xam ne wax dëgg yàlla ay wax sa xalaat ay xibaar mu ci doon def différence bu am am solo ak yeneen émission yoo xam ne daan na ko def parce que ñun dañ di doomu kaw buñ gisee yow ngay ne sa def sa liggéey ba pare ñeme kaw gi te gis nañ ñim daan feeñale yenn dëkk yi dem ci village yi def ay émission yu am am solo mu nekk nit bi nga xam ne seede bi benn la démb ba tey yaa dégg nit ku baax la woon nit a exemple la ci ñun ñi nga xam ne tey ñu ngi def seen carrière ci li nga xam ne mooy wàllu média di ko ñaanal yàlla yërëm ko te jéggal ko di ko jaal waa oxygène bañ na fala doore waa ki tey tamit yaakaar naa ko ràññee dëgg dëgg dëgg ràññee nga ko ak wal fajri tamit defe naa bi mu ñëwee dee média itam ku ne gis na ne def na fa différence bu wóor a wóor kon ñu koy jàll groupe de presse yi mu jaar bu ñu demee dee média nag dañuy jul suñu njaal ñu teg ko ci suñu loxo xarit suñu doomu ndey saaliwu xulle mu joxal ñu ko waa kër ñaan yàlla daal yërëm njaay dos xaree ko aljan ak bépp doomu aadama bu mu fa fekk ak bu ko fa fekk Amin Babacar si kàddu yoon leen tàggoo mais balaa boobu nag euh, may ñaanal ñëpp jàmm surtout nag ñi nga xam ni euh, suñ ko ñaanale nag fi nga xam ne mooy suñu réew ñaanal ko ñi nga xam ne mooy émigré yi nga xam ne noo nekk fépp si àdduna bi rawatina xam ni waaye Italie nga xam ni ñoom dafa mel ni coronavirus dafa ñëw samp fa kër euh, di nuyu aussi di maaso aussi ñoom madame Seck Khoudia Seck as Seck as Tandine ki nga xam ne mooy Talibé Cheikh dawda nuyu ki nga xam ne mooy Ramos Ndiaye ak ñoom tuuti yaay sa ñoom ñëpp ñu leen di maasawu si feebar bi nga xam ne sonal na leen lool fan yii Babacar. waaw loolu moo war a am ñu ngi leen di ba pare tamit di la wax ne ñu ngi seen ginnaaw parce que ay doomu Sénégal la ñu génnoon dem bitim réew daani seen doole waaw xëy na tey euh, moo àddina moo tool foo xam ne mais defe naa ne dawante du am suñu biir parce que ñun ñëpp benn la ñu. yaa ngi dégg dafa fekk ne que nag prévention dafa bokk si lu mu mënoon rawatina feebar mais ñoom ñi nekk à l'étranger yëpp États-Unis Maroc France Italie Espagne Algérie fu ñu mën a de Arabie Saoudite ñoom kenn ñu ngi leen di ñaanal jàmm di leen ñaanal yàlla lii yàlla na leen teggi ñoom Serigne Diour ñoom Benzema ñoom tuuti yaay Sarr Khady Rose Ndiaye Allemagne xam nga ña nekk Arabie Saoudite ñoom ñëpp ñu ngi seen ginnaaw daal di la wax ne daal àddina moo tëdde nii mais tamit Ndeye Coumba Fall di ñaan jàll rek feebar bi mu duggee fii yàlla na ko yàlla génne Sénégal mais génne ko si àddina bi yépp di wax ne tamit le ministre de la santé Abdoulaye Diouf ñu ngi koy wax ne vraiment liggéey bi metti na mais nag loolu mooy jëf noonu mooy jëfu sénégalais mu ngi wane tey ne moom patriote la sénégalais la encore une fois gën a xam ne ñëpp ay sénégalais lañ tey Macky Sall moo jiite réew mi mais waruñu gën a nekk patriote Abdoulaye Diouf Sarr mu de la santé waruñu ko nangu mu gën ñu nekk patriote nañu nekk ay patriote doon ay sénégalais àndu joxante loxo fexe lii jóge fi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amin Babacar kon boog bu suba incha allah